salaamaaleykum mbokk internetu dakarnet.com ah, tey gis nga ñu ngi woon tey fii nii ah, ci géeju Malika bi ñu gis ni que ni démb dañoo toog ñu ne ay xale ay ndaw yoo xam ne ah, ay 15 ans ba ay 18 ans la ñu am lab fii lu mat 10 xale lab fii tey ñu ne woon dañuy ñëw tey fii nii dafa leen reportage laaj leen tey mag ñi fi nekk lan mooy ci seen xalaat ak tamit euh, ñoom lan la lan lañ bëgg fii ñu dëkk ci gox bi parce que am na sax ñu naan ñu fi làpp dëkk ñu fi ñi ñu ngi dëkk Kër Massar ñi ñu ngi dëkk Yëmbal dañuy jóge ba foofu di ñëw fii duñu defee loolu ànd ak sama cameraman bi Fallou Mbaye dugg xool gars yi laaj leen ñoom lan mooy seen réaction ci affaire yi li fi am démb bu nekkul traumatisme ci waa dëkk bi dina nekk traumatisme ci réew mi ndax réew mi ñun ñoo ko bokk di ay sénégalais te njaboot gi fi nekk sunu njaboot lañ waaye waajur yi am nañ ci part de responsabilité ndax it li am fii ci réew mii particulièrement li fi am démb dafa war a alerte parent yëpp képp kuy waajur war na la alerter ndax it di xool xale yi ñuy dee nii de manière facile ndax lan ndax kenn ku ci ne da ngay génn sa kër xa xooloo sa doom comme li ko soxna si waxee léegi kon donc damay interpeller parent yi du seen Malika kese ak du li fi am démb kese mais partout dans le monde ak particulièrement le Sénégal que ni parents yi war nañ takkaat seen digg xoolaat seen njaboot. li am démb yàlla seede na ne mosul am ci Malika géej gi nag at mu mu rey moom moom day rey rey rey rey ba am na lu ñuy yëg am na lu ñu dul yëg waaye li am démb fii ci Malika gii mosu fee am xale yi gis nga dañuy langee ci yaa ngi xool oto mbalit yi gis nga ni ñuy langee dañuy fees dell ci oto mbalit yi lang lang lang lang bu oto yi taxawul ñuy cëppeelu oto mbalit yaa ngi rey géej gaa ngi rey te ñun yaay yi ku nekk toppatoo woo sa njaboot dañoo bàyyi suñu doom yi xale yi di wëndeelu xale yi di taxawaalu fu dem nañ fa dañoo dem xale yi dañoo wax a wax wax bay bëgg a dee mënuñu ci xale yi dara man mii di wax ak yow ndey mi sama seede la jàpp naa fi ñetti xale yoo xam ne ay ñeent ay juróomi at juróom benni at ñëw ci géej ñëw ci géej gi fii ñetti xale maa leen jàpp fii poñe leen téye leen yóbbu leen ci police bi bi ma eggee ci police yi yi jàpp leen foofu tiital leen xëbal leen bàyyi leen ñu daw boobu ba léegi xam naa xale yooyu ñëwatuñ fi policier bi moo mooy kii taal euh, motoom topp xale yi di leen dàq ndànk-ndànk ba xale yi génn Malika ba dem. boppam maa ngi si géej bi toog euh, dàq bi leen di cenne fekk na ma fi ma taxaw ak euh, ñoom kat ak am na coo xappe ñi ngi dëkk Kër Masar ñi ngi dëkk benn baraak yëf yi xaw a yéem a torop bu ñu leen di cenne sax fekk na dëkk bi xat na macha allah rab yi ba amuñu benn yoon bi ñu leen téye ba indi leen leen ci pont bi si la sapeur pompier bàggante. Euh, ñetti yoon yóbbu leen bu ñu paree ba ci guddi gi ñetti oto daal di ñëwaat buubaa leen dem yóbbuwaat leen euh, Kër Massar bi nga xamee fa la ñu nekk foofu lañ leen mujj daal di yóbbu euh, yóbbu ca tamit li ñuy ñaax Sénégal mooy ñu jël seen doppi yar leen état bi war naa jël ay matukaayam mu ay sàndarma ba ay militaire les sapeurs pompiers ñoom ñi ngi xàppee ñooy ñoo ñuy aar fii ci dëkk bi ñoom it ñu jël seen matuwaay comme ni ñu koy defee ndax jëj bi di yoon du sangukaay loolu baaxul ndax dañ ñuy indi ay problème jafe-jafe ba kenn dootul ah, sangu ci dëkk bu toll nii ndax dëkk bi dëkkub jéene la ki fi ko sancoon moo ko fi sancoon kon Sénégal nañu bàyyiwaale xel li ñuy wax ci ah, réew mi. suñu géej gi xale yi fi chaque année ñi fi lab danoo bari ñun te ñi fiy lab ñëpp nag boo xoolee dëkkuñu Malika. feneen la ñuy jógee ñëw ci géej gi di fi parce que fii suñu entourage bi ñi ñaa ngi fii mais benn xale dañuy dem géej mais duñu dab ca géej gi ñi fi dëkkul nag presque boo xoolee ñoom ñoo fii lab géej gi nag moom dañ cee war a wax wax dëgg yàlla ndax xale nit sa yaay jur la yar la fa mu la war a yar nga dem ba toll fa nga war a toll sa yaay yaakaar la nga dem ci géej ga lab fa dee fa tamit loolu tam toroxal say waajur la loolu moom wax dëgg yàlla ñoo ngi koy ñaawlu bu baax a baax a di ñaan suñu autorité yi ñu ñëw jàpp ci malika gi protéger suñu géej gi comme géej gi nee nañu ñoom baaxul ndax maa ngi koy déglu ci information yi ñu ne baaxul ah nañ ñen ñu dimbali nag xale yi ñu arrêté xale yi police ak police baa ngi fii ñu sori ñu police ñu ñëw wax ci xale yi xale yi bàyyi géej gi parce que dëgg yàlla at bu jot xale yi di fi dee ëpp na démb li fi nekk ci mbooloo kenn xamul ni mu toll ambulance yi ñëw na ñaari yoon di jël di yóbbu ñii dee ñii ñii nga xamante ni am na ñoo xam dañu leen yóbbu sax pour leen ci hôpital kon na xam nga ne loolu moom metti na lool man fii laa toog di waaye fii lañ may romb di dem géej dama ko dikk gis nga xale yi di romb lañ jëm loolu nag moom ñoo ngi koy ñaawlu bu baax nag di wax suñu autorité ñu jàpp ci bu baax xale yi bàyyi géej. gars yi de démb presque heure yi la gars yi tàmbalee rab heure yi presque parce que man ba ñu duggee si biir man moom sangu ma dama doon entraîné fii ma gis booy def benn peloton di daw ñoom ñëpp di daw ni arrière dama ki ñëw léegi ba ñu toogee ñu gis ay booy ñu ñu indi man nag 4 morts laa fi bàyyi woon ma toogaat gis sama whatsapp bi ñu naan ma 7 morts ak 9 morts. bis yooyu noonu parce que man 4 mois laa fi bàyyi 4 mois laa a laa fi gis dem ñibbi parce que ay timis yooyu presque avant timis laa ñibbi bàyyi fi 4 mois après ma toogaat ma gis si WhatsApp 13 mois rek 7 mois rek 10 mois. kuñ dimbali daal ñu jël ndax ñun waa Malika Plage moom sonn nañ ba fu sonn yem sonn nañ ko ndax tamit xale yi bu ñuy ñëw ci géej gi dëgg la seeni parent parents leen duñ leen yëg waaye xale yi ñu war a jàppale seen i waajur lañ ndax waajur yi sonn nañ démb kenn nelawul ci koñ ba tey euh, stress la ñu fanaane moom lañ kenn nelawul kenn mooy loolu daal sonn nañ tàyyi nañ ci oto mbali yii dem xale yi di lang di daan ci tali bi di dee géej gi ñëwaat di rey teg ci ñun ñu nekk fii daal kenn nekku si jàmm suñu doom nag ñu ngi garder liñ mën ñun ñoon ñu ngi koy def ñii di jàngee cinq heures buñ jàngiwul dimanche dañuy dem jàngi ci daara yi suñu génnee ñu dugal leen ci daayira yi ñu dem am na ci ñoo xam ne dinañ def lool mais am nañu tamit ñu sàggan ñoo xam ne duñ toppatoo seen ay doom waaw muy lu metti ñu wax vacances yi jot na autorité am nañ ci part responsabilité parce que géej gi kenn waru fee kon nag nañu yabalaat comme ni ñu doon def yabal gendarme yi ñu jël seeni fas dàq xale yi sangu ci ndox mi te xale yi aussi ñu xam ni avenir ëllëg lañ ñu bañ a topp seen fougue de jeunesse rek topp ndox mi rek ba loolu seeni waajur xam nga xale bu dem ba am 15 ans jëm vingt ans say waajur am ci yow yaakaar nga ñëw ñàkk sa bakkan noonu ci ndox mi loolu lu métti la. est-ce xam démb ñi ay ci booy xool seen as ay ñaata la ñuy am. ay ndaw lañ rek ay ndaw lañ ay 15 ans yooyu ndaw ba ba 20 ans def na du ñu mag ay xale lañ. xam nga ne yaay ju toog bàyyi doom ju am juróom benn at juróom ñaari at nga di ko bàyyi ci géej gi xam nga ne toppatoo woo sa doom lijjanti woo sa doom ñu dimbale ngir yàlla ak yonent bi nguur gi wax ci ñu mën ñoo jàppale xale yi mun a bàyyi géej gii ndax géej gi sonal nañu xale yi sonal nañu ñun amuñu jàmm démb jooyoo ñu fi nekkee woon ku nekk xam nga doom ni mel ci yaay ku nekk yaakaar nga sa doom doom ji am fukki at ak juróom ñett fukki benn xëy rek dem ci géej gi xam nga ne loolu musiba naarul laay la te ku ku fi ñëw démb dangaa man yëguma ko way jur yi bu ñu abandonné seen doom xale yi def leen neex kon ñoom it nañ ci part responsabilité nit ki sa doom bu demee génn yendu àll tax ñeme ko def mu ñëw waxoo ko dara bu ëllëgee da koy defaat kon tey jii bu ñu demee tey jii ba li fi am démb man mii damaa dem ba gis xale yi tëdd kenn nettaliwu ma maa ñëw muri di identifier ndax samay doom ñu ngi à côté si kër gi ba ma ñëwee laajte leen ñu ni ma fawi nan ma ñëw di identifier koor gi ba ma gisee xale yi tëdd dama xalaat seen i wayjur mais xalaat avenir xale yooyu leneen li mooy autorité yi nañ jël seen responsabilité réew day am day am kilifa état bi na jël ay responsable di interpeller Macky ak waa ak waa état bi ak ak waa autorité Malika yi ak borom borom dëkku Malika bii di ko interpeller à que mu jëm ñu jëm a taxaw ci sécurité plage bi parce que plage bi du plage bu nit di sangu kon donc autorité yi war nañ ci am ay ay matukaay pour régler problème boobu ba xale yi buñ fiy dugg duñ fi ñëw di sangu parce que plage boo xam ne amuñu waruñu ci sangu je pense que autorités war nañ ci seen ba am buum bu ñu teg xale yi duñ fi dugg mën nañ ñëw nag toog féexlu waaye sangu moom bu ñu ku fi sangu dee waruñu war nañ ci jóg. papa yi tamit ak yaay yi tamit tamit tamit ñoom tamit yenn tamit ñoom la am na ci am na ci côté boo xam ne ñoom la am na ci côté boo xam ne tamit du ñoom parce que say doom bi ñuy dem tam doo ko yëg. am na ci ñoo xam ne ñuy ànd ak seeni i doom fii la ñuy romb ànd ak papa ak yaay ak doom wala yaay ak ay doom jiital sa xale itam dañuy dem géej di sangu loolu yaadu ndaxte bés mën ngaa dem góoj géej toog féexlu mais dugg ci ndox mi di paccax paccaxi xale yi bari fa bay bëgg a tamit loolu jaadul parents yi dañoo a jël seen doom yi téye leen tere leen géej moom géej moom du fawukaay du fawukaay xale du fawukaayu mag du dëgg du yoon ñuy dugg ci géej di fi sangoo ko def lu kenn xamul at bu jot ñaar dee wala ñett dee surtout tey démb moom li dee wax dëgg yàlla dafa bëri waajur moom du sonn warta taay waaw añ ba pare daal tëdd di nelaw xamoo fu sa doom nekk lool moom sàggante mënu kaa paase xale yi nag li ñuy def doo ko yëg waaye nañ waslu ak suñu doom yi ñu moytu géej gi ndax géej gi nag moom fi ne daal ëpp na ëpp na moom li fi am dimanche passé moom musu fee am ci Malika musuñu koo dégg waaw chaque année nag day jël ba doyal waaye ren moom li mu am moom dëgg yàlla bu bu yàgg benn jour bi ci benn jour bi ñu ngi koy doo a gis yaay ñooy bàyyi seen doom ndax doom boo xëyee suba ba jant soo gisoo sa doom lijjanti woo sa doom xooloo fu mu ne xooloo fu mu yend xooloo fu mu fanaan kooku yaay la baay day xëy na dem yoonam doom su baaxee yaay la ñuy wax doom su bonee yaay la ñuy wax su baaxee rek ñu bokk ñun ñëpp ñu jur ko su bonee rek yow yow yaay lañ koy yen duñ ko yen kenn ku dul yaay te yaay liggéey na ba dee daw ba dee mais xale yi nanguwuñoo dégg bàyyi mënul ci dara yaay mënul ci dara yaay day tëdd di nelaw bàyyi doomam yi dem ci géej te koo fi dóor doomam nii billaahi wallaahi yaayam taxaw xeex ak yow koñ bi fi koo fi laal doomam yaay taxaw xeex ak yow te li fiy dee yëpp dëkkuñu Malika. li fiy dee yëpp dëkkuñu Malika. billaahi wallaahi ñi fiy dee ñëpp dëkkuñu Malika daaw benn doom moo fi dee muy doomu imaam sekk mi mii la doomam gaañu fii ci géej gi am na fi ñetti at ñetti fan ci ndox mi mënul génn bi mu génnee keroog ñun ñoo ko jëlee ak yaayam ak policier ñun ñoo ko jëlee benn doom boobu lañ fi dégg daawaati jéeg ñaari élèves yi nekkoon Malika fii ñu doon def booy terminal xaw ma bag ñoo fi nekkoon ñoom tamit ñoo fi laboon mais fii li fi lab lab lab lab lab Kër Massar benn baraak buun yëmbal ñooy ñëw fii ku fi lab rek fii nga jóge ci ci ci mbedd yi nga jóge ñëw fii. loolu du si xale yi si parents yi la tamit si parents yi la parents yi am na ay grand frère yu nekk si gàlle yoo xam ne duñ responsable ñooy bàyyi seen booy ay yu ndaw ñooy dugg si biir fii di sangu ñun moom ay nekkee booy lii moom duñ ko doon def bu ñibbi sax buñ ñibbi sax dañuy làqatu. mais tamit des fois xale yi euh, mooy duñ déglu parents yi dañ dañuy jékki rek génn dem seen yoon. loolu laay wax ni si kii la si parents yi loolu yëpp si parents mais xale buñ koy doon depuis xale xale kay wax bul dem géej di ko tiital bu demee ba màgg day ragal quoi day fa ni su demee sama mag demee moo ñu foofu demee noq wala sama papa su ma ñëwee day xam damay dóor day ragal quoi. ban message ngay jox euh, euh, euh, kii état bi. ah ñu ñu gën a xool sax tàngoor bi tam ñu bàyyi fi ay policier mooy loolu ku amul yenn âge bul ñëw fii parce que fii xale yi chaque chaque chaque weekend fii day fees del ay yi fi nekk di rab voilà te géej bi nekku géej sang géej bi wóorul. ndaw mooy yor réew suba boo déggee ñu ko sax Alioune Sall Junior ndaw a tax ñu koy wax. man daw damaa gëm ndam ndaw ñi na waajur yi xale yi ci kër yi conseiller seeni doom ku ci yaruwul ci mbedd bi boo ñëwee géej gi moom mu ngi toog di xaar rek téye leen doom yi yaraat doom yi téye leen ci kër yi parce que lii amul bànkaas amoo foo téye amoo foo kii nañ góorgóorlu ci njaboot gi waajur wu ne sàmm nga jël sa doom bàyyi ko mu dem ci géej gi noonu xamoo ci sa doom ci yenn condition la ne bu njëkk ba xale bu génnee bu jàngiwul heure bu ne waajurum dina ci lu mu nekk mais léegi xale mën na génn suba ba ba ba ba 19h sa sa waajur duñu xam ci loo nekk maam yar gi daal kër yi la te nañ ko def ran ñu dëkk ci quartier Malika place bi am na ci ñoo xam ne nag ñàkk nañ ci ay doom tey maanaam nga jóge benn koñ nga tuxu si biir Malika nekk fi gan sa doom yi bu ñëwee pour ñoom géej gi rek mooy seen fawukaay am na suñu dëkkandoo yoo xam ne seen i doom wàññeeku nañ ci heure bi daaw rek am nañ ci waaw lu ci lu ci euh, chaque année dañ ciy am waaye nag buñ fi yàggee tuut tamit dañuy xaw dañuy bàyyi géej gi tuut waaye daal li jëm Kër ma saar jëm Mali fee yëmbal côté yooyu daal ñoom ñoo ci ëpp moom. ngeen mairie fii wala. ah mairie moom amuñu ko ñun ñun amuñu mairie de. amu leen mairie fii amuñu mairie moom ñun ki fi nekk pour ñun du mairie. mais sa tamit loo tax tamit xale yi du bàyyi lu fii lapp. loolu ci la bokk ndax moom mi maire rek fameem am naat boo xam ne fameem am na ku ci wàññeeku xale boo xam ne dem na ba def befem ay waajuram am ci ñoom yaakaar fii la yem keroog bi mu ñëwee dafa taxaw ni dina ci jàpp te ba léegi gisuñu luñ ci jàpp. tey boo lancé message état bi lan état mu ñëw indil ñu ñooñu di dimbale xale yi ci ndox mi te ñu tere ndox mi waaw ñooñu ñëw taxaw fii diñu dimbale ci ndox mi ci xale yi bu ñu taxawee xëy na mu tere maire bi defuñu fi dara loo xamante lu am njariñ la sonn nañ ci maire bi maire bi dimbalewuñu ci lenn nag du ci benn doom bu ñu maire bi dimbale diñu dimbale ci ndox mi ci xale yi pour xale yi mën a sax reculer police u Malika dañoo dàq bu police yi dàqee jëm penku xale yi dàq jëm bi bii police yi dañoo dàqanteeg ñoom mujj gi sax ñoom dañoo mujjee toog di leen seetaan ndax am na yoo xam ne tamit taal seen oto ñëw taxaw fi fees fi dell ci tali bi di dàqanteeg ñoom ñiy jaar nii ñiy jaar nii policiers dañoo daw a daw a daw a daw ba tas police Malika bii billaahi wallaahi bu dul woon ñoom am na at yoo xamante ne du tolloog junni nit dinañ fi dee ci géej gi mais policiers yi dañoo daw a daw ba xonet dañoo daw ba sonn ba mënatuñ ci dara di leen seetaan di wax police Malika bi ak maire bi ñu waxtaan ñoom seen biir sonn nañ nag naam ñu ngi def seen seen manin ñu ngi def la ñu mën waaye indiscipline bi am ci réew mi waral na lii di am indiscipline bu demee ba réew mi kilifa gi amatul pu kàddu ca kër ga borom réew mi amatul kàddu ci réew réewam lii rek kay am kon nag ni Sénégalais yëpp jóg ñu defaraat réew mi ndax xale yaa ngi dee ci géej gi di dem Mar di dem Barça ak Barsak xale yaa ngi dee ci réew mi ci biir ci géeju réew mi kon nag nañ jël seen matuwaay defaraat xale yi yaraat xale yi xoolaat suñu réew mi defar ko ba mu gën a baax man daal loolu laay wax mais li am démb xale yi tëdd noonu ku leen xool xam ne lii lii lii désordre total la loolu daal laa ci amoon lu ma ciy sànni bañ a guddal rek xam ni affaire bi ñun ñëpp la la la déranger waaw di jaajëfal euh, médias yi di leen jaajëfal bu baax xam ni yéen yéen a ngi def seen liggéey di alerter di sensibiliser xale yi nag nañ jël seen matuwaay ñoom it te xam ni dootuñu ay xale parce que ku ci dof dof lu ba dee sa avenir ñàkk nga ko waaye sa ñëw jur dana ñàkk waaye yow da nga ñàkk de kon nañ xoolaat seen bopp xoolaat suñu bopp réew mi ñu defar ko. autorité moom da ngeen di ñaax pour ñu jàpp ci liggéey bi mais autorité yi nag dañuy dañoo sonn nañ de. parce que tamit plage bi nii pour nga surveiller ku lépp métti na de parce booy foo leen surveiller ñu dem feneen foo surveiller ñu dem feneen da ngaa wax am solo yar éducation bi yar gi la nañ yar xale yi waaw nañ yar xale yi bu baax autorité nag ñu jàpp ci parce que tamit askan wi ñoom lañ jox dëkk yi ci ñoom lañ yaakaar surtout maire yi nañ gis fusionné police ou gendarmerie ñu jaabante ci dëkk bu gisee ñuy sangu ñu dàqale ñu moom lañ amul ñun jàppale waaye démb waajur yu taxaw fee démb ci police bi rek sa xel euh, dem na ci lool dañoo bëggoon organiser benn doxu ñaxtu boo xam dinañ wax ba xëy na ñu nu ëpp kàddu ñu dégg ñu mën ñu see jàppale waaye loolu nag lañ amagul.